parce xam nga metti sama xol manam xale bi moo ma daf ma tak dara tagalawuma ma ak mom worna yalla ludul bisub tay bi te li yalla moko dogal rek ñaaw na lu gëna a ni lu gëna metté li am am sa jabot am sa dom bu ndaw ay samba boy walla sàmba booy def ko nii ñu ko def ci niñ ko xamee loolu ku ni mettiwul mën nañu wax ni def la darul man metti na. depuis jeudi ay une heure heures fii ci buntu kër bi rek lañ ko jiitalee ndax ñoom duñ dem fenn sax. xam naa ki ko jiit parce que moo kii mu ñoo àndoon ak beneen xale ñii dem nag xam naa bi mu ñëwee la ko fekk daal di ànd ak moom ma génn nemmeeku ma ko géex naa ko sax nemmeeku bi ma ko nemmeekoo ci laa génn laajte ko fii kër bi muy fowee ñu ne ma ñëw fa kii moo fa ñëw après nit ñi commencé génn ñu wër fii yëpp gisuñu ba 5 heures jour boobu di matin ñu ngi toog maa sama borom kër ak sama dëkkandoo yëpp depuis loolu nit ñi tooguñu jàppale ma mu métti bay bëgg a dee war yàlla sama càmmiñ yi ñoom ñëpp kenn toogul sama mbokk jëkkër fu ne lañ jógee sama waa dëkkandoo yi xool ba sonn fu ñu dégg maa man dem nañ fa fu ñu wax ñu ne dina ñëw xëy na ñëw na nag dellusiwaat nag yàlla moo ko dogal rek sant bu wér metti na nag waaye comme que yàlla moom moom ma leen joxoon moom moo ko soxla rek mu jëlaat ko ak beneen xale waaw mais moom mujjuwul dem kii mooy seexam te mosuñu tàggalikoo sax même guddi su ma leen tëralee sax ba teg kii sëñ Fall fii teg ndey ñoom ñaar dañuy fekkante xam naa mbiru yàlla rek ñoo ànd bi ñuy génn fii te bi ñuy dem tam dafa mel ni dañ ma gëlëmal dama dugg si waañ bi du ñulug fekk ma teg sama bunt néeg nii fóot di bàcc seen yére papa yi mu liggéeyee après bi ma ko ko pour sangu leen ma wër fii yëpp mel ni dañ ma takk wóor na yàlla après nit ñi sax ma gëlëm nit ñi ñoo ma doon seet léegi yooyu après fii la mujj fii la mujj. di ñaan yàlla rek ci kattanu yàlla li may wax chaque jour moom laay wax ñi def ñaawteef bi yal na leen yàlla wane leen man bëccëgu na rek kaam ndax metti na. jeudi metti mënu ma koo wax soo gisee sax ma dal samay dëkkandoo samay càmmeñ nit ñi jiwu leen sax lii mais maanaam taxawoo ñu biñ taxaw sama doom ji moo tax lépp lu newoon sama xol dama ko raxas bësanteeg sama xol mais metti na. deful ndax ñii yàllaa ma leen jox rek. ko soxlaa da koy jël c'est que xam nga lu ma metti sama xol maanaam xale bi moo ma taq daf maa taq dara tàggalewu ma ak moom war na yàlla lu dul bisub tey bi te lii yàlla moo ko dogal rek ñaaw na sama tout près fii ma dëkk su ma tëddee du ma nelaw jour bi mu njëkkee dem vendredi bi damaa xool ba cinq heures bi ñu nodd maa ngi toog ci mbedd maa sama borom kër ak jëkkëru sama xarit bee mami baara ay xaritam tëdduñu benn yoon depuis boobu ba tey dama am lu ma naqari waaye sant naa yàlla sant sama waajur yi ci àllaaxira yàlla na ma ñu teerul ma ko rek metti na tor waaye comme que ñii ñëw nañ taxaw lu ma metti woon rek wàcc na yàlla yàlla mën na ma la neen man xam nga dama génnoon sax man man si suba bi ma xëyee dama génn bi ma génnee dem ville côté tournal bi am fuñ ma tegtal te man depuis loor dem laa soog a génn nit ñi ñoo ma doon demal ma ñëw ñu ne ma fii lañ gisee tu près rek fii ma dëkk ci watu tool yi nii xaw ba tey mënu ma la ne fii la ndax man tey bi ma xëyee tey laa soog a ñëw fii sama kër yaay laa newoon parce que dem mënu ma woon toog fii ma ne sama càmmañ bi na ma yóbbu suñ kër ak jabaram parce que boobu kon du ma mën a toog tey jii wax ak yéen ndax boo toll woon na ma foon ndax dama ko bëgg wur na yàlla te aw ma ko moom rek mais yàlla moom boole xale ma ëmb leen juróom ñeenti weer mu métti torop toll ci guddi yoo xamante ne dama daan toog fii ci escalier yi ma boot gàddu ma ne yàlla dafa mën a teg nattu man Khady Ndiaye mu di ma jox xale yi waaye naa muñ ma koy wax fii ci terrasse yi man kese tey ma yor leen dippe xale ba ñu def am ñaari at ak 6 mois waaye sant rek yàllaa tudd loolu yàlla dina leeral lépp li may ñaan rek di ko ñaan yàlla ku ne nal ma ko yàlla leeralal ko ki def sama doom ji góor ci lu ñaaw lii yàlla leeral ko ba ci kunda rek kaam loo rek laa amul may ba ndax sama xol te bëgguma jooy ña ko def suñu boroom ba nga leen tiim xam na leen de te it dinañu feeñ ndax matuwaay yi ci war gouvernement bi dina ko jël ci ndigalal président te ñu ngi ci ndax nit mënul xalaat amul lenn looy def lu def ñaawteef bu mel nii ci ay xale loolu ku ko mënti def ak dinga ko layoo ci ak sa boroom mais di nga ko layoo fii ci àddina bi kon ñuy wax waajur yi muy boroom ki nga xam ni mooy waajur wu góor wu sëñ Fallou ak waajuram mu jigéen ngeen muñ metti na lool nag mais ngeen delluwaat ci yàlla ci suñu boroom nag ndax julit lu metti suñu borom koy tek ngeen muñ ko. waaw bon biñu biñu biñu retrouver xalé bi bon voisinage bi ñepp dañu daw ci ñepp ñew dajalo ci kër gi metti lu affaire bi vraiment ñeneen ñew aussi pour di famille bi bon à cet instant nak si la benn way di man bi mi romb sax bon donc fekk parce que ñu dans les derniers réglages pour xol nan lañuy def pour dal corps bi ñu nan bon il paraît xalé yu ko japp malchance bi waa day dafa doon koo xam ni apparemment il ne joue pas de toutes ses facultés mentales wérul wérul parce que man confirmé nañ ma effectivement ni wérul bon waa ji nag day for ay xottu xottaat yooyu yàlla nattu ko nag bi muy for di kii ba dem ci tool boobu saako bi nga xam ni moom la moom la ñu foree woonu xale bi bi sapeur yi ñooy jël xale bi saako dañ ko bàyyi

donc ñun bon après biñu taxawé ak waaji automatiquement ma yow grand non man de xamé mo affaire yoy mëno man mbir la dëkk affaire yoy quoi football sax affaire ah, de je suis dans le mais xamé affaire mais bon gars yi enquêté ko effectivement li waajooju ni euh, de kër ne mu wax ni mom ça a été très difficile pour nous metti woon trop pour ñu génn il a fallu l' de la police le commissaire s'est déplacé avec ses éléments de la police ñoom ñëpp commissariat bi ñoom ñëpp ñu ñëw mënuñu fexe ba génne waa ji commissaire bi mu ñëwee sax il a fallu que Cheikh Ndiaye Baye Fall délégué de quartier ni commissaire retourner parce que foule bi dañu excité te foule bi mëno leen contenir donc parce que y avait plus de 3000 personnes yu dajé fi nit ñi yéeg fi boy yor seen i yat yor seen xeer ni waa fu ñu ray ko

am ay blessures amna ci sax ay jigéen yo xamni ay asthmatique yo xamni ci biir kër gi ni fi lañ leen dugal pendant presque 2 heures de temps ñu leen jox ay meew il a fallu sax ñu intervenir à l'hôpital Youssou Mbartane donc amatu xamatu ci sax dara quoi waji police yóbbu